عن شر فم وشر عين يلاه وشر سحر وشر الخلق إنسهم معجنهم وذوات السن يلاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وزينة العرش وبعد يا سلام هب لي سلامة إلى دار سلام ما لي سواك عند أهوال القيام ولي هب فيها به دار سلام إلهي إلى دار سلام التي بها وناجيك قدني عاجلا واكفني حربا دعاني إلى دار السلام التي بها وناجيه بالذكر الذي طيب الغصب أجب وسلم بسلام يا سلام على الذي بوأته دار السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النيو تدلين جار بباخ تدلين جاجفر تجد النيو بأك زيارة بشيخ محمد منتقى ابن شيخ محمد البشير ديكو نيانا مكن فيها قلون تغنوير بل مين اللي قلبر مبا مدفك سوكم تاندكم ولن تالبين waaye di ko ñaanal suñu am di moo doon benn Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall waaye di ko ñaanal Cheikh Sidi Muxtaar mi nga xam ne moo tax ci njabootu bopp borom daaru borom Daaru Salaam tey ñaanal mboolem kilifa xam ne rek yaa ngi toog sa di maam di dellusiwaat fii nag ci daara ji di nuyu suñu mbaak Anta mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi di sunu sëriñ di sunu lépp di ko nuyu bu baax a baax te di ko ziar waaye di ci toftal sëriñ Amadou Mbàkke mi xam ne mooy jëwriñu ci waar wi di ko nuyu baax moom itam rafetlu taxawaayam ci daara ji waaye di nuyu suñu astak Diop uh, Touba mi nga xam ne moo topp ci Baye kon ñu ngi nuyu jëwriñ yëpp te nuyu mbokk yëpp di nuyu mboolem bànqaas yi nga xamante ni aju nañ ci daara yi Serigne Gawane lu ci mel ni lajnatul ilmiya wa ak bureau waxtaani borom Gawane ak bureau waa ak bureau uh, waa kër borom Gawane Mame Cheikh Anta ak tim kuréel gu màgg kuréel gu xasida mboolem koo xamante ne na ci bànqaas mboolem bànqaas boo xam ne aju na ci kër Serigne Gawane gi ci daara ji Euh, ñu ngi leen nuyu bu baax a baax ak mboolem ña nekk te leen nuyu ziar bu baax a baax te rafetlu seen liggéey ak seen taxawaay euh, tey nag di altine euh, tey di dimanche doon fukki fan ci weeru baraxlu waaye tombeeg fukki fan ak ñeent ci weeru mars tey nag ñu fas yéene andil émission bi nga xamante ni doon nañ ko togg jamono yëpp ngir fukki fan ak juróom yu nekk ñu ñëwal leen ci émission boo xam ne day jëm ci Sëñ Gaawaan waaye nag dimanche tey jii tombeek ñuy waaj màggalu borom daaru te borom daaru ak borom gaawan nekk benn ñu fas yéene woon andi leen ci digganteeg borom gaawan ak maam Cerno Birahim ngir ñi nga xamante ni sama kalaas gi xamuñ woon lu bëri ñu am luñ ci mën a jàngatee mel ni nag ñaar ñoo xam ne waxtaane leen mooy waxtaane kenn waaye waxtaane ñaari ñi tamit mooy waxtaane borom Tuubaa kon loolu lañ leen andiloon tey xam naa ci kanam tuuti ñu daal leen duggal dëgg dëgg dëgg dëgg ci biir waxtaan wi waaye bala loolu ñu présenté suñu gan gu mag yi di Serigne Dame Diop jànkatu xasida di taalibe borom daaru xam naa incha allah da ngeen dégg kàddoom ci biir émission bi ñu koy safoo bu baax a baax te tey rafetlu taxawaay ak pasif bi nga xam ne am na ba teew ci jotaay bi ngir fas yéene ànd ak ñun ci liggéey bi. kon nag loolu lañ leen di fas yéene présenté incha allahu taala ni leen ko waxee woon diggante maam Thierno Ibrahima ak rakkam ja maam Cheikh Anta ñu bokk lépp waaye tim bokk gi dañ cee dañoo bokk waaye tim ba noppi ñu ñu waat muy relation yi nga xam ne seqoon nañu ko ñoom ñaar incha allah dañu ko ci biir waxtaan yi waxtaan wi nag euh, buñ ko dooree ba suñu daam jub euh, ubbil ñu daal di dugg ñun ci xasida yi ak ci walafale yi maam Cerno yi comme ni mu ko daan defee incha allah. su ko defee nag bu ñu demee ba ci kanam danañ yaatal ligne bi ngir mbokki taalib bi nga xam ne ànd ñu ñoom ci liggéey bi ñu joxe seeni participation ngir gën a yaatal liggéey bi incha allahu taala kon xam na dañuy maase teewlu sëriñ Dame Diop mu andi ñu xasida incha allahu taala kon sëriñ Dame Diop sëriñ Dame Diop bismillah dalal ci daara yu soppi si ngaawoon ñëpp ak lay teewlu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 يا رحمن يا رحيم ربي بما يصرفون أصحان خنفجاء بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وشدري اليوم نورا فاتحا ملا محمد صلوات الله في أبد عليه في اسمي كله به كلا أدها إلى لسي أمن موائبها لجملة خلف ما يختار من بلا ناجيتها جل أهواما وكرمني تكريم هاد وكل من لخن بريق رحمن أب لجميع الخلق رحمة من يغني عن سر من قرآن خراب هد أمة المصطفى عن كل مفسدة وترحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل أن خود ارحم جميع الورى يا هاديا ردا ما أوت ما خدنها القلب من درر بجاه أفضل من لله قد لجا آمين يا رب العالمين jërëjëf jërëgeen jëf jërëjëf sëriñ Dame Diop ci xasida yu am solo yooyu mu yëkkati defe naa xool yëpp na ci xasida yi macha allah suñu sañoon sax day continuer wéyale ba ci kanam waaye nag programme la xam naa loolu daf leen ci mos rek incha allah bu ñu demee nag ba ci kanam mu daal di dugg ak yéen xuusaat ci wolofal yi nga xam ne dana koy roy ci Samba Wade waaye itam euh, te te ñu def ko ci suñu euh, suñu maam Thierno Birahim dañ leen ci ñëwaatal bu baax a baax incha allah taala comme ni ñu ko waxee woon li nga xam ne moo war a jotaay bi muy dikk ci li nga xam ne mooy diggante maam Thierno Birahim ak euh, maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam ak Gaabaan comme ni ñu leen ko waxee woon ñaar ñi. duñ ñaar kenn lañ ndax ñoom ñaar liñu ñu seqoon bëri na lool bëri na bëriwaay goo xam ne liñ ko ci benn jataay wala ci benn émission xaju ci xam naa lu ñuy tënk rek lay doon incha allahu taala waaye dafa baaxoo sooy waxtaanee nit moo xam kenn la wala ñaar da nga laal tuuti ci ay cosaanam fan la feeñee ak ñan ñooy koy ñan ñooy ay wayjur yi nga xam ne meññ nañ ko kon fiñ ñu koy dooree muy maam Cerno Birahim maam Cerno Birahim nag mi ngi feeñ jamono ci poroxaan ci atum 1864 ci poroxaan am na ñu ne bisub alxames la feeñ jamono ba nga xamee ne tim feeñ na jamono tombe xare bu metti ba nga xamee ne sax dañoo mujj daal di dem ci benn dëkk bu ñuy wax poskoto fa lañ ko joxee aw tur muy mam coono birahim mamor anta sali tuddee ko euh, sëriñam xaritam bi nga xam ne jàng na ci moom xam-xam mu tuddoon cerno ibrahim kon Cerno Ibrahima moomu lañ tuddee maam se maam maam Cerno Ibra Faati mii maam Cerno Ibra nag di doom ji sëñ Mor Anta Sali ak soxna Faati Isa Jóob nga xam ne boo toll boo toppee ak càllalaam daf lay yóbbu ci maam Maharam waaye boo toppee càlla ak maam Cheikh Anta dañ fay dajee mu mel ni dañoo bokk way góor ba noppi maam Cheikh Anta nekkaat ci ak ci tënk rek maam Cerno noonu la dikkee ci maam Maharam kon ñu dikk yen ci ni nga xam ne noonu la fa dajee ak sëriñ gaawaan sëriñ gaawaan nag di maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam gaawaan di doomi soxna Anta Njaay Mbàkke ak sëriñ Mor Anta Sali moom ci mi ngi feeñee Poroxaan ci atum mille huit cent am ñu ne mille kon ñoom ñaar ñoo bokk benn dëkk bu nu ganee jamono bu dee nag ci ni nga xam ne bokkee nañ ko ñoom ñaar ma dikki rek ci ab tënk boo xam ne andi na càllalaak maam Cheikh Anta waaye di andi na càllalaak maam Mor euh, andi na càllalaak maam Thierno Ibra Fatim moo tax ma wax ne ma jug te wax dinañ dikkee ci maharam ndekkoon nga xam ne ñoo bokk maam maharam ma jug te wax dinañ dikkee ci maharam ndekkoon nga xam ne ndekkoon nga xam ne ñoo bokk maam maharam maam maharam mi maami ahlu mbàkke moo di ko jur suñ maam ja ibra mbàkke maam ibra jur suñ maam ja anta mbàkke mi yaayi sayxi anta seydi mbàkke ma dellu wax ci càllalaak maam cerno may mag ci seydi anta ñu bokk xarnu maam maharam di waay juru astu mbake may maami cerno ibra faati mbake maam astu mbàkke jur soxna maa isa jóob maam isa jur soxna faati maa isa jóob maam faati jur cerno ibra faati moy tax ñu na ko Cerno Ibra fadi mam Cerno ibrahim nak ginnaw bi nga xamé né lepp luy doomi soxna def war na ko def ci bu tollé ci waxtu ñu ko defé am Cerno bi ñu tollé ci waxtu jang yóbbu nañ ko ci ku ñi wax serigne Ñang mu dal ko jang waye ñu fatali ne manam mam Cerno ibrahim du ci ëpp rawatina ci walu xam-xamam sëriñ Tuubaa moo ko jàngal moo tax walfalkat yi naan Bàmba ne ko baa ba xëy ne ko bàyyi xam-xam bi nga xamante ni moom la ko maam moom la ko borom Tuubaa jàngaloon tax na xam-xamam jéggi dayoo mboolem xam fii ci Afrique ku amoon xam-xam la waaye tam ku xereñ la woon ci wàllu jàng suñ fàttali ko am na fu suñ Musaa Ka waxee ne maanaam bi nga xamante ni euh, am na ay naaru ñëw doon am ñu ñuy ci yu ñu war a lijjanti maam Thierno moom la Seexu Xadim yebal moom la si Musaa Ka di wax naan kuy di laajal naari waa daymaani sen gag ba jàlloon njukk ñëw Suudaani bambaane maam Thierno nañ leen gàgganti man bamba bis penc ba lay lijjanti keroog la maam Thierno lijjanti naare tasaare maanaa ya te laalu mool yi ngir rek tegtale maanaam xam-xam bi nga xamante ni maam Thierno Birahim amoon na ko ak fasaxa gi nga xamante ni amoon na ko waye tim fofu nga xamanteni ni na fa tim bi sëriñ ta tasee na fa ak borom gawan rakam ja ndax tim ñu fatali ko ne manam sëriñ gawan tim ku ñu wax sëriñ euh fa la am njangam kon tim ñom ñaar gis nga fi ñu wat ci wàllum njang kon ñom ñaar dafa melni seenu and lu téla manam lu manam euh, seenu and dafa nekk loo xamni lu téla dor la ndax dañoo bokk ci wàllum bokk ba nopi tim lañ bokk ñu bokko ko seen ra tax lool rafet lool ba ñu tuddalante ay ay njaboot ñoom ñaat ci wàllu tuddalante googu nga xam ne tuddalante ñooñ nañ ko ak njaboot ndax soo xoolee maam Thierno Ibra Faty euh, sëñ Cheikh Awa Balla mi nga xam ne mooy rek yi sëñ Modou Awa Balla maam Cheikh Anta Mbacke la ko tuddee maanaam nga xam ne maam Thierno Ibrahim bi mu tuddee Seyxul Xadim doom bi sëñ Modou Awa Balla kim ci teg maam Cheikh Anta Mbacke borom daa salaam ak gaawan la ko tuddee loolu yëpp muy relation bu ñu seq waaye ñu déggoo juboo nekk benn macha allah kon loolu euh, euh, euh, maanaam dañuy wax ne nit ki soo ko bëggee maanaam soo ko tuddee doom rek bëgg nga ko. rawatina loolu ak jëflante yi nga xam ne daana am seen diggante di maanaam daana am seen diggante ñoom ñaar loolu nag mu nekk loo xam ne toofeex la ju rëy rëy rëy rëy ndax ñoom euh, li leen euh, boole mooy euh, mooy passif boo xam ne maanaam ñu ngi koy doxee si seen diggante ndax li xewoon ci jamono mooy ñaari doomi baay moom dañ daa xamante waaye nag wax dëgg yàlla ñoom ñaar ñu déggoo woon lañ ñu ñu juboo woon lañ te boo xoolee macha allah njabootu suñu ànd sa liggéey noonu lañ déggoon noonu lañ juboo waaye ñun dañoo seq yu bëri yoo xamante ni euh, yëpp sax ma ne su ko lim boo xoolee tamit ci wàllu suñu gaawaan tuddee na maam Cerno euh, Birahim euh, doon ndax nee nañu sëñ sëñ Ibra Ndar mi nga xam ne doomi maam Cheikh Anta la maam Thierno Ibra Fall euh, maam Thierno maam Cheikh maam Thierno Ibrahim la ko tuddee loolu nag li ko waral muy doyloo gi nga xamante ko ñoom ñaar ci seen diggante muy loo xamante ni wax dëgg yàlla luñ teel seq la te itam luñ bàyyi xel la ndax euh, ñaari mag a rakk bokkee fuñ bokkoo fu ñu yaroo ba noppi tamit seen diggante nekk relation boo xamante ni lu neexaw loo wax lay doon wax dëgg yàlla loolu jafe la ndax kenn ku ci nekk daanaka ka nga tuddee sa doom ten nga ko tuddee doom loolu nag teel a bàyyi xel di teel bàyyi xel sa morom moo war yooyu yëpp kon gàcci ngalaama ñaari sang yooyu waaye itam ñaari jàmbaar yooyu moo tax ma wax ca marché ba moo tax ma wax ca marché boobu nga xam ne doon naa ko def ci suñ gaawaan mané cheikh anta limu war cheikh eh, anta limu def jarna way suba ngon xar bax la du ndaw limu def amul won day mbokk Serigne Touba di doomi bayam ñoo takal la xassayam liggey di jamam sax ci mom diko topo ko sak barkeem cheikh anta limu feñal feeñal man dama yim may ki juk nara way ki di sidi gawan ngir mayam dafa lambo ngeneeli ridwan kon maanaam eh, ay ngeneelam ak ay baaxam ak bokk gi mu bokk yëpp da ko jaayoon Serigne Touba jëndee ko nekk ab jaamam te dim noonu mu foore woon ci wàllu àdduna ba soo gisee sa xel dem ci buur noonu la foore woon ci ci wàllu eh, yàlla maanaam digganteem ak boromam maanaam eh, eh, maanaam digganteem borom ku boromam ku ci amoon ay martaba ak maqaam yoo xamante ni macha allah kenn fekk ko ci. ma ne déglul ma xar baa xam nga xam ni maam Cheikh. am ki man bu fi daagooti mukk ciy seex mooy ki man ñi fi soo daan mënaale bii daan taw melom du ko tee teew fa peewi diiwaan moroomam bu ko wax mukk amul fi leeg fee di su xam Cheikh Anta lu dul ëllëg fee Cheikh Anta dafa raw gars yi door a départ kursuut dafa wéy nit ñu door a départ saa yaram dafa jéggi baatin ba ñuy xool naam seex ay mbootam xajul ci ay muul kon maam Cheikh Anta waxtaanee ko ba àddoo tukki taxul nga jeexal ay mbiram waaye loolu yëpp mu amoon nag da ko jaayeen jëndee ko nekk jaamu Sëriñ Tuuba di sàkk barkeem diko ko liggéeyal noonu tamit la ma loo woon nag mboolem ñi nga xamante ni bokk na jamono te bokk moom sëñ Mor Anta Sali a rawatina jàmbaar ju ñuy waxtaanee di jàmbaare Seexul Xadiim di maam Thierno Ibrahima Faty ndaamal ndaamal la ci daaru kon jaaraama maam Cheikh Anta waaye jaaraama maam Cheikh euh, jaaraama maam Thierno Birahim maam na Birahim jàmbaar la joo xam ne moom tamit comme ni ñu ko waxee rek. lépp lu mas am rek sëñ Tuubaa masta bëgg dara masta yëkkati dara jëmale ci boppam lépp rek loo xamante ni jag na rek wala wala nekk nu taar rek ngir moom borom Tuubaa moo ko yeyoo bëgg ko bëggoon tim amul frontière amul amul frontière maanaam dafa bëgg sëriñ Tuubaa ba nga xam ne lépp lu bokk ci sëriñ Tuubaa rek amul ci yow frontière ba tax na ni nga xamante ni meroon na ko maam Cheikh Anta Mbacke amu ci woon frontière te it amu ci woon sago kon tim e, maam Cerno Birahim yàlla nañu ko yàlla fayal daaru salaam du fenn tey ku fi ñëw xam nga loolu tey sëriñ bamba ko sëñ ci muy lu rey jox ko jëmuy këram daaru salaam du fenn tey ku fi ñëw xam nga loolu tey sëriñ bamba ko sëñ ci muy lu rey jox ko jëmuy këram daaru salaam du fenn tey ku fi ñëw xam nga loolu tey sëriñ bamba ko sanci muy lu rëy jox karakam ja muy këram maam Seex Anta amoon na bis ñëw fi naa ko nga ma maa mbaam yow yaa di gor man maa jaam yaay sama sang maa la gëm ñoo xam doo doomi baay yaa gën ci ñun ndey ak jaay yaa gën ci ñun maam ak doom yaay sama sang maa la xolal borom daaru salaam ba ma def seexul xadim di dox di dem maam seexanta di xarangu calay ba seexul xadim di dox di dem jaaraama maam seexanta yaa gëm bamba ya taaru yaa tabit gëm yeneen ba jaaraama maam seexanta yaa bamba ya taaru yaa tabit gëm yeneen ba yaa jokko fab sa mbiru ci seenu askan jébbal ko sëriñ Tuuba sa bopp ni raw rak ñoom fappa bi yoon ba fa rasulillahi indil ko sëriñ Tuuba ndam wallahi fappa bi yoon ba fa rasulillahi indil ko sëriñ Tuuba ndam wallahi fappa bi yoon ba fa rasulillahi indil ko serigne touba demul walay jere jeuf serigne dam job fab pavillon ba fa rasulillah it ko touba demul walay bam fa be fabee pavillon ma nak ñew jox serigne touba dajal maqam Ibrahima jeglé ko mam Cheikh ibrahim kon gis nga lolu ñu fi xexate wax nañu tim mam Cheikh Anta masna ndeke kërëm war otom dem seeti maam Cheikh ibrahim ma génne ko Thierno wutal otom ndax man sama kër laa ndékkee nii te maa ni ñëw nii sa kër fas yéene fi a mu ne ko a ah, man de léegi laa doon xalaat te yaa ngi ne agsi te loolu gën a gaaw kon jërëjëf Serigne Dame Diop ci njàngam am am solo moom mel na ni sunu jëwriñ nga Serigne Ibrahima mi ngi noonu di yorloo kon dañ koy dal rek ta tàggal ko te déglu ko bismillah